sultaanul awliyaa mawlaana Muhammad ibnu Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu wa ala aalihi wa azwaajihi wa ahli baytihi wa muqaddamihi wa talaamizatihi wa man tamassaka bi tariiqihi ilaa yawmi ddiin mbokki julli di gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi di bésu jumua di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla yokku kattan ak wér ci barke alquranil karim ci barke sayiduna muhammad waaye ñu ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi feebar tëdd wala feebar ti ko sooxaale yàlla moo mën a faj yal na la yàlla may wér ci darajaay alquranil karim ci daraja sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ngi ñaan mbool njaboot yi nga xam ne caabi ñu ngi leen féetee gannaaw nekk ay tooñ yàlla ne yàlla làqarti foofa ci barke alquranil karim mbokk yi bu loolu weesoo ñu bëgg a waxtaanee tey almawtu lañ war a pare war nga tuub jéggalu dellu ci yàlla tabaraka wa taala ndax kenn xamut kañ ngay dee ak fan ngay dee ak naka ngay dee bon mbokk mi jaadu na loolu foo tollu nanga ko sooraale ndax li tax boo xasee génn àdduna amut lenn lenn lu lay jëriñ fii ci àdduna lu ma yàq ñaan waaye am na ñoo xam ne dañoo dàq loolu ne ñaanal ku dee baaxut ñaanal ku dee bidaa ñaanal ku dee amul njëriñ ca dee waaye loolu day mel ni dafa weddi xadiisi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne waxtaane woon na nit ki bu dee léppam dog na bam ñett ñetti mbir dafa mel ni ñu ne ko yaa rasulallah yan ñett ñoo des yi nga xam ne day jëriñ doomu aadama yi nga xam ne dee na nabi sallallahu alayhi wa ne li nga xam ne mu ngi koy jëriñ mooy doom ju baax ji nga xam ne bàyyi na ko gannaaw mu koy ñaanal bon mbokk mi danga ciy déggee ne ñaanal nit ku dee dagan na danga ciy déggee ne jàngal ko alquran dagan na ndax lit amut lenn lu mën a ñaane yàlla lu ëpp lu tedd téereg yàlla bi lépp luy nit di ñaane ya rabbi yaa rabbi alquran moo ci gën a màgg nit mënta ñaane lu ëpp alquran moo tax bu la yàlla jaglalee nga mën a wàccee alquran yéene yool ba sa waajur loolu dagan na ndax li tax teg nga ko fu wér nabi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne nit ki bu génnee àdduna léppam dog na lu may ak ñetti mbir bokk na ci doom ju baax ju mbaay di ko ñaanal bon ñaan yooyu dafay nangu mbokk mi bu kenn génnee ci li nga xam ne mooy ñaanal sa walla wala ñaanal ku dee nga ñaanalee ko alquran daganut waaye boo dajee nga ne yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljanna mën na dagan bon loolu banee dagan mën na dagan nga jàng alquran nga yéenal ko yool ndax nabi sallallahu alayhi wa sax waxaan na ci beneen hadis mu ne jàngal leen seen way dawlay suratu yaasin yaasin lan la alquran la ndax mu ne lépp mbir am na xol xolo alquran mooy suratu yaasin bon seen way dawla yi dee leen de jàngal suratu bon nag ku jàng suratu nga boole ko téere yàlla bi yëpp dama yaakaar day gën a tedd waaye lu ñaw ñaaw nekkut bon mbokk mi nañ xam ne ñaanal ku dee baax na jàngal ko alquran baax na ndax li tax nabi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle boo waxee ni ñu ne la nabi sallallahu alayhi wa sallam mosta def loolu waaye da ngay bàyyi xel ci zamanu rasul sallallahu alayhi wa sallam kaamil amutoon sax ñu koy tasaare nen nañ ko jàngal kaamil waaye zaman booba dañ doon jàngal ku dee suratu yaasin bon nag ku mën a jàngal nit ku dee suratu yaasin war nga ko mën a jàngal téere yàlla bi yépp nga yéenal ko yool bi day gën a sakkan rek a baax ndax alquran la ca bon nekku ca lépp rafet lépp wax yàlla la alquran kalaamullah bon mbokk mi soo jàngee wax yàlla nga yéene ko nit ku dee loolu suñu borom bi tabaraka wa taala da koy nangu waaye day jaadu nag yow mu ñuy defal ñaan alquran bu ñu jàngal na fekk nga yeyoog moom fekk lan nga sonnoon ci alquran wala nga doon ñaax alquran wala nga doon ñaax ñuy jàng alquran wala nga amoon doom yoo xam ne danga leen dugal alquran nañ jàng boo booba la lay alquran di ramm maanaa nga mën a dem ndax nabi sallallahu sallam sax wax na ci beneen hadis nabi ne bépp mbir dina ramm waaye luy njëkk a ramm mooy alquran alquran day rammul jaam bi loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel nabi ne nit ki bu bu demee ba allah yawmal qiyaama taxaw alquran day jóg di la rammul nekk nekk benn yàlla daf koy bind mu nekk melokaan alquran jog ñëw di la rammul naan yàlla kii sa jaam la waaye kii ku ma doon jàng la kii ku ma bàyyi woon xel la yàlla maa ngi lay ñaan sa màggaay ak sa sama màggaay alquran na nga jéggal góor gi yàlla gi ngir lan daf ma doon jàng bon alquran da nga koy dundal ëllëg moomin mu ràmmu la bii day ramm day ramm jaam ak lan koor woor tamit koor day rammu doomu aadama bi nga xam ne dem bar sax ngay gis koor day jóg taxaw ne yàlla yow yaa digloon ci man nañ may woor yow yaa digloon ci man nañ may sàmm waaye kii bokkoon na si ñi nga xam ne daf may woor xataa bu dul weeru koor sax daf daan sonn ci man daf maa daan woor bon yàlla maa ngi lay ñaan sama njëggal ci sama màggaay na ko jéggal te yàlla tax alquran bu ràmmee nit foo mu texi koor bu ràmmee nit foo mu texe waaye nag boo bëggee loolu ràmm la faw nga sonnu ci moom faw nga sonn ci moom bëggal alquran wala nga bëgg ñooñu alquran wala nga bëgg ñuy dundal alquran waaye bul nekk si ñi nga xam ne da nga bañ alquran bañ ñooñu alquran ndax li tax boo dee amul lenn loo yaakaar lu may njëggalu suñu borom bi tabaraka wa taala bon bu ñu waxee alquran du ràmm loolu leneen la ndax lu gën a tedd ci lu gën a tedd lu gën a tedd lu gën a baax ci doomu aadama mooy julli maa ngi lay laaj booy julli lan ngay jàng du alquran da ngay jàng faatiha ba sell faatiha soo ko déggee yépp day tagg sunu borom bi tabaraka wa taala lan nga ciy teg mooy aaya alquran boo ci tegee yeneen bëy du mën a wér boo ci tegee woyi sëñ bamba du wér boo ci tegee woyi xaaji malik si wala waxi beneen wali yàlla boo manti doon julli gu du ngir lan du waxi yàlla waaye lan lay al lan lay julli gi di wéree mooy waxi yàlla subhaanahu wa taala alquran bon alquran boo koy jàng si julli boo ko boo ko ràmmulee kooku am na yaakaar sunu borom bi tabaraka wa taala dina ko jéggal ngir lan ngir barki alquran buñ ko jàngal bon mbokk mi nañ xam ne ñaanal ku dee baax na jàngal ko alquran baax na jàngal ko suratu yaasin baax na jàngal ko ixlaas baax na waaye ñu bëri dañuy dàq loolu xaaji malik si radiallahu taala anhu bés dafa ñëw ci benn rob ñu rob noppi mu dégg ilimaan bi ne nañ jàng faatiha benn yoon qul huwa allahu ahad fukki yoon ak benn Maodo yëngal bopp mu ne war na mën a ne kay war na mën a ne ñu ne ko Maodo li tax nga wax loolu mu ne gannaaw nit ki yéeféer bi yéeféer bi mooy génn àdduna nga gis mbokk yi jël ay fuloor yu rafet ay fuloor yu taaru di ko ko tegal ngir lan yaakaar ci moom njéggal am mbaax mu ne bon nag boo jëree tagg alquran nga jël loo xam ne day tagg sunu borom bi tabaraka wa taala nga tegal ko way dawla ji kooku am na yaakaar yàlla na ko jéggal ngir lam barke alquran yaa ngi tagg sayduna ma yaa ngi tagg al sunu borom bi tabaraka wa taala te nit ku ne bëgg nañu tagg la nit ku ne bëgg nañu wax ci yow lu baax bon boo toogee nga ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam wa walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad tagg du gën a rëy li nga jël ko jagleel ko ku dee sunu borom bi tabaraka wa taala mën na koo jéggal ci qul huwa allahu ahad bon mbokk mi mag ñi lépp luñ def lu rafet la lépp luñ wax lu baax la ndax teguñ ko seen nafsu bon nañ xam ne ñaanal ku dee baax na nañ xam ne rammul ku dee baax na nañ xam at bu jot nga mën koo ku nga defal ko ñaan baax na mbokk mi nañuy ñaanal suñu way dawla yi ndax nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fekkee ñaanal nga aji dee gis malayka moo ko koy indil mu kontaan lool ngir lan yool bi nga ko ko yónnee moom it mu ñaanal la yàlla la yàlla yàggal ci aduna yàlla yàlla yàggal ci aduna ngir lan nga may yàll nga yàgg di yónnee lii ci zaman am benn waay ay ñu dee mu dem ca xabru ya mu ne tey dafay dem wéetal borom bi tabaraka wa taala ngir yokku ragalam yàlla mu fanaan ci armeel yi ay fan bu demee ba timis gi dugg rek day dem ci bàmmeel ya fanaan fa waaye bu tëddee guddi day gis ci gént ñoom ñëpp dañuy jóg ñu sol yu weex ñuy dem ba mu des kenn nit la gis koo xam ne mu ngi sol lu weex mu ngi tëdd ci xabarum bi jógut fa mu jóg fa mu tëdd waaye des yëpp bu guddi gi xaajee rek dañuy jóg ñoom ñëpp ñu ànd mu gis ñëpp ñi ñuy dem mu leen di xool ba dootul leen gis mu yéemu ci lii lan la waaye mu gis kenn si ñoom duy dem fen fa mu rek la tëdd ba bés ba muy ñibbi mu laaj ma mu gisaat loolu ci gént gi mu laaj aji tëdd ji yow li tax bu guddi gi xaajee damay gis ñu dee ñu ñëpp dañuy jóg sol di dem ñu jëm penku ba duma la gisati yow fi nga tëdd jóguloo fi mu ne wallahi mu ne lii ngay gis ñuy dem jullit yu baax yi ñuy buñ jullee ba noppi ñuy ñaanal way dee ñi loolu la ñuy dem di séddoo ji bor bu set la ñuy dem dañuy dem di séddoo ji yool yi nga xam ne jullit dañ koy ñaanal aji dee ñi loolu la ñuy ji loolu la ñuy dem di séddoo waaye man maa ngi am doom ju baax ñu ma bàyyi yoon àdduna mu may ñaanal bor bu set ci loolu laa doylu loolu laay jot waaye bis ni ki tey boo gisee ma jóg dem tey kooku it gaañu na aw ma ku may ñaanal moo tax ma ànd ak ñooña bon mbokk mi loo ci déggee ñaanal sa waajur ñaanal way dawla yi dafa rafet waaye la sa ñaaw amut ca jàngal ko alquran ma ne jekk na taaru na baax na dara nekkut ca bon mbokk yi maa ngi leen di ko dénk di ko dénk sama bopp képp ku yàlla man loo boo manee jàng al alquran yow dong baax na boo ko manul nga oo ay jaamu yàlla ñu jàngal alquran bu sell bu baax baax na xanaa tey dañoo dem rek bañ dugal ci loo xam ne bokkut ca dañoo dem ba dugal ci kaamil loo xam ne bokkut ca waaye mag ñi ba njëkkaan sax dangay gis dañuy seet ñu mokkal wala ñu yëpp téere yàlla bi ñu dugal leen ci ab ruq ñu jàngal leen alquran ba noppi ñu génne saraxi saraxi waaye tey ak lu ne ak koom-koom buñ ci am tuuti mooy jaral doomu aadama nga gis koo xam ne doo gis bind sax nga ne da ngay jàng alquran bon mbokk yi bokk na ci li nga xam ne balaa ñu laa defal loolu yow it nga préparé sa bopp nga am loo jiital sa bopp ndax li tax suñu boroom ne inna allaha indahu ilmu saa wa ma yunazzilu algaysa wa yaalamu ma fi l وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير sunu boroom ne kenn xamul luy ñëw xamul ko kay dee suba kenn xamul ko sunu boroom rek tabaraka wa taala moo ko xam ndax man nga gis fi nit ku wér kañ ñu bokk ak moom jullee fii waxtu yi ne mu génn fi rek dajeeg sunu boroom bi tabaraka wa taala nga gis koo xam ne mu ngi tëddee ay at ñu yaakaar ne diw dee bër bu set léegi mu dee nga gis kooku jogaat bay dox soxlaam nga gis koo xam ne mu ngi wér ne kët di dox si ñaari tànkam tëdd rek dee bon mbokk mi lan nga ci déggee préparel sa bopp lay ñëw ëllëg sunu borom bi tabaraka wa taala moo ko ba mu naan wa ma tadri wa ma tadri nafsun maada taksibu gada kenn xamut lan ngay am ëllëg lan ngay jot ëllëg kenn xamut sunu borom bi tabaraka wa taala rek moo xam sa ëllëg lan lay lan lay ne yaakaar rek nga am di préparé naan ëllëg dinaa def nii déwén dinaa def nii déwén ak dinaa def nii ren dinaa def lii yaa ngi teget waaye li suñu borom bi tabaraka wa taala naan rëdd rëdd na ko noppi na pare na ca alquran dem ba mu naan wa maa nafsun bi ayi ardin tamut mu ne benn bakkan xamut fan lay dee kenn si ñun xamut fan lay dee kenn si ñun xamut ban hôpital lay dee kenn si ñun xamut ban réew lay dee wa maa tadri wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamut waaye inna allaha alimun xabir waaye sunu borom bi tabaraka wa taala xamoon na loolu nëppi na ca waaye ñun ñi kenn si ñun xamut diw fan lay de kenn si ñun xamut bari na koo xam ne ñu yëkkati ko fi ngir yaakaar wér-gu-yaramam yóbbu ko ba bitim réew mu daal di fa dee bari na koo xam ne mu tëdd fii ñu yaakaar ne fii lay dee mu dem ba ca dex ba daal di fa dee bon dee ci loxo yàlla la nekk waaye lu siy jaadu yoo mbokk mi préparel sa bopp rafetalal sa digganteeg sunu borom bi tabaraka wa taala rafetal sa digganteeg sa mbokk yi rafetal sa digganteeg sunu borom rafetalal sa jaamu yàlla moo tax waykat bi ne kera ba rasul sallallahu alayhi wa sallam génni àdduna aboubacar ni siddiq mu ngi nekkoon benn koñ mu jékkee-jékki rek bañ tàgge ko sayduna muhammad génn na àdduna dafa jógee foofu di daw daw yu mu yegg si suuf si yëpp di yuuxu dafa yegg si rek sukk ci kanamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne tey laay dëggal dee mooy dëgg mu ne an nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salaamata fiha tarku ma fiha laa daara lilmar'i baada almawti yaskunuha illa allati qabla almawti baaniha fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuha wa in banaaha bi sharrin xaaba baaniha abubakar ne an nafsu tabki ala dunia mu ne bakkan mu ngi jooy ci aduna mu ngi joy aduna wa qad alimat anna salaamata fiha tarku ma fiha te bakkan kat xam na lan mooy mucc ci aduna mooy bàyyi aduna ak bàyyi lu nekk ci aduna na nga bàyyi aduna balaa aduna di la bàyyi bàyyil aduna ak lépp loo xam ne nekk na ci aduna mu ne bakkan mu ngi jooy ci aduna waaye lan mooy mucc ci aduna mooy nga bàyyi aduna ak lu nekk ci aduna nga bàyyi loo ci déggee nga bàyyi xër xër gu ëpp gi nga bàyyi xel sa diggante sunu borom lan mooy ragal yàlla looy xër-xëri bu waxtu jotee na nga ko fa bàyyi nga dem wooteeg sunu borom bi tabaraka wa taala ndax bés bu la malakul mawti ne assalaamu alayka da nga bàyyi lépp li doon def nga uyu ji ko bon nag balaa booba bu sa borom bi tabaraka wa taala woote lépp loo téye woon bàyyi ko nga dem uy wooteeg sunu borom bi tabaraka wa taala loolu la Abubakar wa mu ne laa daara lil mar'i baada al mawti yaskunaha mu ne nit ki amul kër gannaaw deeyam nit gannaaw dee amul kër illa allati qabla al baaniha bu duu njëkk balaa ngaa dee fekk tabaxal nga sa bopp kër googa kër gi ngay dëkk ëllëg yow yaa koy tabaxal sa bopp fii ci àdduna kër gi ngay dëkk ëllëg ca àllaaxira yow yaa koy tabaxal sa bopp fii ci àdduna xee nga ko tabax bu sell fa in banaaha bi xayrin taaba maskanuha wa in banaaha bi sharrin xaaba baaniha mu ne fekke tabaxe nga ngul sell mu ne taaru na rafet na baax na am nga dëkkuwaay bu baax waaye boo ko tabaxee safaan wa texee di nga am nga musiba am nga texee di yàlla nañu yàlla musal ci kër googa mu ne almawtu baabun mu ne tey laay dëggal almawtu baabun déedee buntu la almawtu baabun dee buntu la wa kullu naasin daaxilu mbooleem nit ñi dañ cay jaar bon dee buntu goo xam ne la du jaas mukk mbokk julit bés dina xëy dang daan dégg diw gaañu na nga xamoon ko lool mu xamoon la lool bés dina ñëw doo dégg diw da gaañu na yow la ñuy dégg diw gaañu na bon mbokk mi nanga nga bàyyi xel sa digganteeg sunu borom na nga bàyyi xel ci dee na nga rafetal sa digganteeg sunu borom bi tabaraka wa taala ndax lan sa ëllëg mën a baax ndax nabi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ci hadis mu ne nit ki bu gaañoo buñ ko dugalee ci xabru luñ koy njëkk laaj mooy julleem bi luñ koy njëkk a laaj ci jaamu yàlla yi ñuy bari bari bari julli gi lañ koy njëkk a mbokk mi fekkee sa digganteeg suñu boroom julli gi rafet na baax na mu ne kooku texe na day mel ni examen fekkee rek féel nga foofu sa lépp yàqu na waaye fekkee rek julli gi baax na la des yëpp am nañu yaakaar da nga dem waaye fekkee rek sa digganteeg suñu borom bi tabaraka wa taala rafetul sa digganteeg suñu borom bi tabaraka wa julli gi baaxul mu ne sa bunt sa dem yàqu na ndax sa liggéey yëpp yàqu na sa liggéey yëpp perte na waaye fekkee sa jaamu yàlla gi baax na na nga xam ne yow texe nga am nga buntu aljanna ubbi nañ la ko ngir lan mu ne almawtu baabun wa kullu naasin daaxilu yaa layta shi'rii ba'da almawti maddaaru mu ne aka neexoon fekk sama gannaaw yooyu man maa ci topp aka neexoon fekk ma ne du ma dund waaye xoolal Aboubacar booba la gis am mbégte am na ñu ne sax keroog la Aboubacar géjaree bañ gis bañam ñaari at la dund gannaaw rasul sallallahu alayhi wa sallam moomin mu génn àdduna ngir lan bàyyi xel ci boppam ci dee bon mbokk mi lan nga ciy déggee suul nga sa ndey waarul la suul nga sa papa waarul la lan moo waar leneen dee bu waarul nit dara du la waar bon mbokk mi nanga nga bàyyi xel ci dee na nga bàyyi si jaamu yàlla na nga bàyyi xel ci jaamu yàlla loo mën a def loo mën a liggéey na nga bàyyi sa xel sa digganteeg sunu borom bi tabaraka wa taala ifal ma chita fa inna allaha du karam wa ma alayka ida adanabta min albaasi illa snatayni fala taqrabahuma abada ashirku billahi wal idrara binnaas waykat bi ne jëfal lu la neex sunu borom bi tabaraka wa taala mën na laa jéggal ndax julli sa digganteeg sunu borom bi tabaraka wa taala la koor sa digganteeg sunu borom bi tabaraka wa taala mu ne ifal ma chita fa inna allaha du karam liggéey lu la neex waaye sunu borom bi tabaraka wa taala borom teraanga la borom jéggale la ndax nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man sama rammu damay ràmm ñi xam ne gëmoon nañ yàlla ñu doon góorgóorlu si jaamu yàlla waaye ñu doon mooy yàlla ñi nga xam ne boromi bàkkaar lañ ñooñu laay ràmmul waaye ki nga xam ne deful dara diggante boromam bi tabaraka wa taala sell na rafet na kooku amul luñ koy ràmmul ñan lay ràmmul ñi nga xam ne ay jullit lañu waaye dañ doon mooy yàlla waaye waykat bi ne ifal ma chita fa inna allaha du karam wa ma alayka ida adanabta min albaasi illa isnatayni fala taqrabahuma abada ñu ne ko yan mu ne ko ashirku billahi wal idrara binnas mu ne ko jëfal sunu borom bi tabaaraka wa taala xafuru rahimun borom njëggali la borom ku yërmandi la waaye nanga nga moytul ñaari mbir sunu borom bi tabaaraka wa taala du ko jéggal ñu ne ko yaa rasulallah yooyu mooy lan mu ne ashirku billahi bokkaale sunu borom bi tabaaraka wa taala bokkaale sunu borom bi tabaaraka wa taala du ko jéggale ak lan wal idraara binnaasi ak lor sa mbokku jullit sunu borom bi tabaaraka wa taala du ko jéggal lor lor gi nga lor sa mbokk jullit loo baax baax baax loo mën a jaamu yàlla loo ragal yàlla yàlla waaye fekkee rek yaa ngi lor sa mbokk jullit loolu sunu borom bi tabaraka wa taala du ko jéggale kan moo koy jéggale mooy kok nga lor ñu ngi jàngale ci taarix am na benn waay bu ragaloon yàlla bu mënoon a julli lool ñëpp yaakaar ko ci ragalam yàlla ñëpp yaakaar ko ci mën a julli ñu wóolu ko tamit lool di ko daan dénk ay alal waaye loo ko dénk boo ñëwee jël si ko na ko na nga ko na ko ko joxe woon noonu la la koy joxe am bés ñu dénk ko dara yàlla dogal ci biir loola mu daal di génn àdduna ka ko dénkoon ñëw ci ñoom ñëw ci njaboot gi ne leen man de seen papa dénkoon naa ko nangam ñooñu ne du ci dal sama papa kay lépp luñ ko dénkoon gis nañ ko waaye yow li nga wax amut mu topp ci mu nekkoon alal ju sakkan mu topp ci bañ mel ko ñu ne ko demal ci teenu nangam. fekkee rek aljanna la nekk soo ko wooyee ñetti yoon dina la uyu góor ga daal dem foofa doom ya daal di dem foofa ñu oo papa ji ñetti yoon papa ji uyuwut te ñëpp amoon yaakaar ne kooku niti aljanna la ngir lan mën a jaamu ya ngir lan mën a jaamu yàlla ngir lan lam ragal yàlla ngir lan la mën a saraxe ak def yu baax mu woo ñetti baat papa ji uyuwut ñu daal di ñëwaat ñu ne ko ah ñun de dem nañ ca teen ba woo nañ ko waaye suñu papa uyuwut kooku ne leen dem leen ci beneen teen ba mu tegtal leen beneen teen mu ne fekkee safara la nekk si ngeen ko wooyee rek dina leen wuyu xale ya daal di dem ca teen ba dañoo yegg si dañoo woo benn yoon rek papa ji wuyu ñu ne ko bàyyi lu xew li nga sonnal yàlla ak li nga jaamu yàlla ak li nga mënoon a julli papa lan moo la dugal fii mu ne gaaw leen ngeen dem soo leen demee wax leen diw na ma jéggal ngir yàlla bakkaaram ndax maa moom duñ doon wax dama ko mere woon dama ko amaloon xol bu bon moo tax yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala dugal ma safara su ma jéggalut du ma génn fii loo ci déggee mbokk mi jéggalante leen te yàlla tax keroog ba kooku ne bañ ko ko yëgalee mu ne jéggal na ko te yàlla tax fa la ne pàppa ji génn na safara demaan na biir aljanna bon mbokk mi sa jaamu yàlla bi yëpp mu ngi sa digganteeg sunu borom bi tabaaraka wa taala waaye sa jaamu yàlla bi yëpp tamit mu ngi sa digganteeg sa mbokki jullit yi na nga si ñoom xel. dëkkandoor dafa foor dëkkandoor dafa tiit dëkkandoor dafa dëgër ndax li tax nabi sallallahu alayhi wa sallam du daan jóg mukk di dënkante waaye dëkk dëkkandoor yi nañu bàyyiwante xel ba rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne jibril daf ko daan dénk bam yaakaar ne moom bu dee sax alalam ji maanaam waa dëkkandooram yi am nañ ci wàll ngir lan yaakaar ne ne dëkkandooram yi dinañ dollu ci alal gi ngir lan dëkkandoor dafa foor bon nag ñu ngi leen di dénk ragal yàlla topp yàlla di ko dénk sunu bopp di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla boole suñu yàlla jéggal na ñu yàlla boole suñu yàlla jéggal ci barke alquranil karim barke sayduna muhammad bu loolu weesoo ñu ngi leen di yëgal bu loolu ñu ngi leen di yëgal suñu gàmm bu faral di def ak bu jot ren tamit incha allahu rabbi ñu ngi ko fas yéene def gàmm guñ daan def ak gu jot ren tamit incha allahu rabbi ñu ngi fas yéene def gàmm ga fii si buntu juma jumaa ji ñu ngi ko yëgal mbokk jullit yëpp di ko yëgal alkaali di ko yegal ñooñu dëkk bi di ko yegal xalifa yi di ko yëgal ñëpp di ñaan ñëpp tamit nañ ci jàpp di ci sàkku ndimbalit lépp ci waaye man na ko ci def buñ noppee si julli bi dinañ yëkkati ay nit ñu daal di dugg ci mbokk julli ni ñu jàppalante ñu te yàlla tax ngir lan lañ defaree foofa ngir lan lañ defee ay baas ngir lan la ñuy màggal guddik sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ko fonk ñun fonk nañ ko ku ko fonk ñun fonk nañ juddug sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw pileekat football bi moo mën a jël ab këllam dugg ci dëkk bi di ñaan Denelson ma ne kuy màggal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñaane Denelson loolu yey na bon ñu ngi ñaan ñëpp ci ndimbal di ñaan ñëpp ñaan yàlla may ñu yóbbu ñu si jàmm ci barke alquran al karim barke sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin ñu bokk salaatu ala nabi